mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen dalal bu baax di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ Cheikh Ahmed Al Khayri Diop ak mbooleem njabootu sëriñ Mor Diop gi nga xam ne ñoo bàyyi ko mbooloo mu yaatoo yaatu jóge fee ci Ndar nga xam ne mooy cosaanu barab bi koy ñu leen di nuyu bu baax euh, di nuyu bu baax euh, suñu baay baay Ibra Fall Diop di teg ci loxoom nuyu yëpp mbooleem euh, famille Ndiobène gi yëpp nga xam ni moo nekk ci boppam di ñaan yàlla sàmm ko yokk guddal fan ak mbooleem magi Ndiobène ji ak ñëpp di nuyu bu baax di dalal euh, mbokki parents d'élèves yi yëpp yi nga xam ne ñëw nañ ak mbooloo ci place bi leen sant bu baax waaye di dalal bu baax dëkkandoo yi nga xam ne ñoom lañ bokkal dëkk ci quartier bi nga xam ne mooy quartier kay baax euh, bu ñu tuddee ki nga xam ne mooy délégué de quartier bi sëriñ Sidi Bouya Thioub da ngeen yóbbaale ñëpp bu ñu tuddee si Moustapha Sène mi nga xam ne moo jiite association quartier eh, matal mboolem ñi yeewoo ci quartier bi. Eh, nu yëpp sëriñ daaray quartier bi bu ñu tegee ci oustaz Maguette Cissé mi nga xam ne def ànd ak seriñ bi di sëriñ daam Diop ak mboolem sëriñ daay yi fi nekk di fi liggéey liggéey bi am solo bu ñu tegee nu yóbbu ci loxoom dana yegg ci sëriñ daaray quartier bi yëpp bu ñu jógee ci loolu. Euh, dañuy daje ci bis bi nga xam ne dañuy faral di ko def muy bisu daara ji nga xam ne ci lañuy def feet bi nga xam ne muy tëj atu jàng bi nga xam ne moom lañ dooroon ñu koy def yaa ko def ren jii ñu koy defaat muy loo xam ne day am solo ci mbooloo mu ni toll daje ci barab euh, làmboo ay wayjuri donga waaye làmboo ay dëkkanu làmmeek ay xame yu yàgg xameek sëriñ bi ak ñi nga xam ne sopp alquran dégg woote bi wuyu si ko ñëpp bu ñu dajee day ajoo ñu xam woote kan lañu ñu wuyu wala woote ban daara la ñu wuyu euh, foofu li ñuy njëkka leeral mooy daara ji mi ngi tudd Miftaahul Nasr mu naan institut Miftaahul Nasr liñ koy woowee ci buñ ko tënkee gatal ko ba gat waye buñ buñ né tour bi deug miftahun nasr mohammed Massamba Diop biñ ci tek moy ki nga xamné loxom mi ci sosuk daara ji alxaaji Modou Massamba Diop di ñaan yàlla yokul leral yakarna ci suñu xew-xew yu ñëk ya amna wax ni mom lañ ko tuddé won fatali ko li nga xamné moko bolé nak daara ji ginnaaw bi ñu teg ci faraxu tey si asir ndar kon nga xamne limi tek moy bankas la lo xamne ciosan la ma nga ndar te sëriñ ahmadul khair mi xamne xam suñu serigne yar ñu jàngal ñu euh nek tay ki xamne xam fu moo wuti suñu serigne ba cheikh naa sëriñ moo yàlla yàlla yokku yërmande bu baax kon lolu moy daara lolu nak dafa mëna leral ndax euh dana ci bëri ñoo xam ne bu ñu gisee affiche yi wala ci entête yi de dana danañ jaxase du ñu xam kan mooy euh, Miftahul Nasri bi ak Mouhamed Samb ak Falahou Teysaassi moo tax bu ñëwee di présenté tur bi lañ war a njëkk a xamle ginnaaw bi nga xam ne ci biir tur bi Modou Massamba Diop moo ci nekk ki nga xam ne mooy kilifa gi nga xam ne moo yor daal ji sos ko. mooy Serigne Dame Diop moo xoolee ci affiche yu mujj yi dañu mujj bu ñu paree dañuy bind suuf al mudir ñu bind directeur ndax loolu yenn saa yi nit bu liiree rek benn tur ci biir tur daa dane day jàpp ne moom mooy même tur bi la kon loolu mooy li ñuy ñëkk a xamle daara ji comme ni ko daa faral di leeral ci yenn xew-xew daara ju cosaanu la ju yàgg ndax mi ngi sosoo fële ca benn barak nekk depuis 1986 mi ngi dox di liggéey xëy na dox na lu yàgg ñun ñu di wax yéen juddooguñu nga xam ne li fi nekkoon ci ay dongo yu njëkk nga xam ne tey programme bi li muy rëy li muy yaatu li ci nekk lépp ci ay jumtukaay ñoom ñoo ko ci matal ñooñu ñoo fa nekkoon ak moom ak sëriñ bi ñoo ñooy taxaw tey seen njabootu bopp ñoo fi bokk ak nekk ak njaboot yi nga xam ne ñu am yaakaar ci daaju indi leen ñëpp ñu bokk fi nekk kon day wane yàggal ju cosaanu la euh, nekkoon fële ca benn baraag yàlla def ak euh, jamono ñëw ñu soppoon jataay indi ko fii ci nga xam ne mooy euh, jaxaay wala ñàkkurab ci quartier bi nga xam ne mooy quartier baax ñëwoon fii depuis 2012 ñu nekk fii di fi liggéey daara jaar ji nga xam ne moo doon cosaan li suñu mag euh, sëñ Abdou Lahad Diop moo fa nekk féete di fa wéyal liggéey bi dafa liggéey liggéey bu am solo mat na ñu leeral sax ne dafa ñëw ak mbooleem dongam yëpp yeb leen ci oto indi leen muy loo xam ne lu am solo la ne nekk noonu tamit am na ñeneen ñoo xam ne euh, ci daara leen doon jànge sos daara tey ñu ngi ñëw ñëw indaale seen njaboot ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant ak di xam leen ne loolu tamit day wane liggéey bi yàgg na ba génne na ku ne. léegi nag daara ji bu ñu bëggee xam ci dëgg-dëgg programme bi daara la goo xam ne programme bi comme daara yi cosaan yëpp bu la neexee nga wax. alquran mooy li nga xam ne mooy base bi mooy cosaan li mooy jubluwaay bi njëkk bi nga xam ne xale bu ñëw loolu la ñuy wut ci moom. mom lañuy ñuy yaakaar ci mom mom lañuy sabab bi ci mom kon way bi moy mokal alquran ak tahfiz kep ku fi ñëw inscrit ci dara ji programme bi fi nek limuy proposer moy sabab lu ngir gorgolu ba mokal alquran bu yàlla sotale lolu ñu jàpp ne étape bu njëkk bi ci xale bi jeex na léegi nag li ci des bu fekkee nga xam ne woy juróom dafa am xalaat ne dafa bëgg a suivre beneen programme loolu mu doon dugg ci li ñu tuddee système franco arabe bi nga xam ne euh, njàngum arabe bu ànd ak france lay doon ak euh, njàngum xam-xam boo xam ne dañ koy gën a dooleel loolu nag mooy programme yi nga xam ne ñi nga xam ne yàlla dimbali na ñu mokkal alquran ñoo ko mën a def kon nit mënul ñëw ñëw ci daara ji direct ne dama ñëw ngir école ndax loolu du cosaan li école bi nekkul école bu tijjeeku nga xam ne dañuy tij tij inscription ku bëgg a ñëw jàng rek jàng dañu naan ñi nga xam ne mokkal nañ bëgg a fas yéene yeggale seen programme ñu ne nañ leen ñooñu lañuy defal programme boobu muy programme boo xam ne ñu ngi ci ànd ak suñu oustaz oustaz Maguette Cissé mi nga xam ne mooy jiite markaz Zeynab Ibn Thabit bi nga xam ne mooy suñ dëkkandoo di koo xam ne wéttal la ak euh, ci ci daara ji ne ko xam day ànd ak sëriñ bi sëriñ Dame Diop di ko jàppale ci bare bari bëri yenn saa am na yoo xam ne man sax la si euh, sëñ bi di féetale ma nekk ci ak moom muy muy muy taxaw taxaw ba am solo kon ñu ngi koy sant ci loolu kon muy loo programme boo xam ne moom lañ ci àndal nga xamné xalé yi mokal ci Miftahul Nasr ak ñi mokal ci zinu Sabit ñoy bokk def ben programme bo xamné dañuy proposer xalé yi ci ñetti at ñu mën leen présenter ñu mën def CTK en entrant sixième yaakaar naa ren am nañ ci 10 personnes yo xamné le 21 ak le 22 lañ wara présenter wu def CFEE bi kon ñu leen ñaanal yalla dafa leen tawfeex bu baax a baax loolu moo doon xamle daara ji bu lolu wéyé ñu. dem ci programme bi bu démé ba yegg ci xale bi mokal na nan lañuy ñuy firndeele ne mokkal am xam nañ ne xew-xew yu melni xeyna amul temps buy maye xale bi woné mokalam lépp du ci xajul ci temps yi ak yi ci wara am yépp motax ginnaaw ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy seq xale yi ci wàllu jàngale ci njiital sëñ Ba Ibra Diop mi nga xam ne moom la sëñ bi teg loxoom lépp loo ne wàllu njàng la ci côté boobu euh, bu ñu amee benn xalq benn jàngalekat boo xam ne am na dongaam bu mu wóolu neem kii kat mokkal na dañ koy déclarer li ñuy njëkk a def mooy ñu déglu ko ba yaakaar ni kii kat war euh, mokkal na buñ ko dégloo jox ko sëriñ bi sëñ Dame Diop tamit moom tamit mu jël waxtoom déglu ko nga xam ne amul kenn ku ñu toog fii ñi nga xam ne ñoom la ñu présenté koo xam ne sëriñ bi di toogul boppam déglu la kaamil bu ma sëkk ba mu seede ne mokk na ndax comme que ay étape la ginnaaw ba nga xam ne jóge na ca xalqa ba ñu présenté ko sëriñ bi ba mu jël temps ba déglu ko ñu ne ah, kon nag mi ngi bëgg a nekk loo xam ne lu wóor la ndax euh, ki yàgg a jàngale xam alxuraan ba xam ne jiit ne suñu juddu ñëpp nga xam ne ñam jàngal léegi daanaka ay mag la ay kilifa bu seedee loolu moom wóor na bu ko defee ginnaaw loolu la ñuy woote bis boo xam ne dañuy woo waajur yëpp ne leen kat jàpp nañ bis sàngam ak sàngam comme alquran kaamil dafa yaatu ñaari fan la ñuy jàpp euh, ne dañuy commencé tari bi waajur yëpp teew mu commencé di tari ba ni kaamil bi di yeggee ànd ak commission bi nga xam ne ñoo koy déglu di ko déglu di ko bàyyi xel luñ ci gis di noté waajur yi di déglu ñu ñëpp di déglu ba ba ñu ne noppi na ñu doog ne ah kon nag

ñu leen sant bu baax ndax liggéey la bu jafe waaye nag di sant bu baax waajur dong yi nga xam ne ñoo nangoo ne mu ñu xaar ko waaye ak xale yi nga xam ne ñoo ñoo ko nangoo dékku ba yegg fi nga xam ne foo lañ bëggoon ñu yegg kon ñoom ñëpp ñu leen bokk boole di leen sant euh, daara ji nag bu yëkkatoo kàddu dina sant waajuru daara ji ñi nga xam ne ñooy ndeyu daara ji ci ñi nga xam ne ñoo ko féete ci biir muy ñu ñoo xam ne ay liggéey yu am solo lañuy def ñu mën ci di soxna Fatou Diop mu ci di soxna say sayna bu Diop soxna Ndey Silla muy ñi nga xam ne ñooy suñuy wayjur ànd ak ñun di jàppale suñuy wayjur jur suñu daam Diop di def liggéey bu ama am solo boo xam ne mat na saa yuñ taxawee ci jataayu bu mel nii ñu fésal ko xamal ko sakku ñëpp ñu ñaanal leen ñu yàgg ko man bu ñu wéyee la loolu sant tamit ndey daal yi nga xam ne ñoo féete daal ji nekk ci biti bu ñu tuddee ndey daal yoo xam ne mooy Adja Maam Jaara Gay ak Adja Fat Ali dana yóbbaale mbooleem ñoom ñëpp ni ko noonu association bi nga xam ne mooy Miftahul Nasri euh, du ñàkk sëñ bi bu jëlee kàddu dina ko dina ci taxaw bu baax muy ñi nga xam ne suñu mag yi baax yi nga xam ne ñoo bokkoon nekkoon ak sëriñ yi doon jàngee ci moom mag euh, am yaakaar indi fi seen njaboot boole ci seen i xalaat seen i pexe di def ay réunion di daje fu ne di nas ay pexe di dajale li ñu am ba mën a taxawal lii ñu taxawal nga xam ne ñun ñii ci daara ji dara waruñu ci dara waruñu ci nga xam ne ñoom ñëpp li ñuy wax lenn la mooy liñ leen sas mooy bu programme bu paré li ngeen ci wara def ci biir nak euh lepp lu lu barab bi laaj ñun ñoko yu matal kon ñooñu bu ñu taxaw fi mat nañu sante leen baax sante wayjuru donga yi ñep ndax daara kat bu yeggé fenn fi wayjuru donga yi japp nañ ci baax ndax ñoo tax ñu naan daara te yit buñ la ko yombalé rek mu yomb kon wayjuru yep mu xam ci ñi ci jigéen ñi ñu ngi leen di sant bu baax di leen jéggalu ci yenn yi nga xam ne xëy na de ay manque lay doon wala ni yenn saa yi ni nga koy bëggee doo ko amee noonu ndax am na ci loo xam ne programme ak règle du maye loo xam du ko maye kon yooyu yëpp ñu bokk ci am ci compréhension di leen ci masa bu baax waaye di leen sant seen compréhension bu baax euh, bu ñu fàtte sant di ginnaaw bi ñu dalalee docteur madame Faye mi nga xam ne mooy mooy poste de santé bi nga xam ne moo ñu gën a jege waaye ndimbal la ci daara ji trop ndax saa yu ñu amee lu ñu jaaxal moom la ñu njëkk te mooy koo xam ne yu ñu amee dara lu ñu soxla ci xale bu ñu war taxaw mu taxaw ak yitte bu mat sëkk du jar sax. ñun ñuy dem buñ ko bu buñ ko woowee téléphone rek yebal kuñ mën di yebal dañuy gis ne taxaw ma sëkk ñu ngi may wax ne yegsi na ñu ngi koy dalal di ko sant bu baax a baax a baax kon di ko ñaanal yàlla yàlla ko taxaw di ko xamal waajur yëpp ñu xam ne nii la nekkee ci daana ji xam naa xam naa ñu ngi may soññ ci waxtu bi te am na loo xam ne faaw ma wax ko eh, ci wàllu waajur dong yi ak li ñu war li ñu mën a bàyyante xel comme li ñu xamee fête bi incha allah tey la war a commencé 18 bu ñu noppee lii xale yi dañu war a libéré ñu ñu dem seen i kër foofu nag ñu ngi ciy ñaan ñu ma ñu am ci muñ mayante yombale ñu liggéey bi incha allah ñu ngi koy ñaan baax di ko ñaanal di ko fàttali. fête bi nag incha allah juillet 20 juillet incha allah lay jeex ndax weer lay doon. kon loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel bu baax feet bi ñu am weer lay toll dina door tey xale yu ñibbi seen i kër ñu ñu ngi leen di séntuwaat ñëpp ñu ñëwaat ci barab bi le 20 juillet incha allah di tombé ak alxamis ñu ngi koy fàttali bu baax ñu bañ cee tardé képp koo xam ne dafa am yéene njabootam dil soit ci barab bi na bàyyi xel ci date boobu bu baax fexe ñu mu teel a ñëw. boo defee suñ programme mu mën a teel commencé bañ benn perturbation bañ ci am ndax tardement boo amee rek faaw jafe-jafe dina am ci suñu programme ñun féete daara ji waaye ci programme xale bi ci boppam te it tardement boo amee feet bi dana gën a yàgg ndax weer boo ci tegee jàngoo loo ci tegaat muy gën a yàgg bu doon fàtte fàtte bi dana gën a metti te loolu day gën a jafeel reprendre bi commencement tàmbaliwaat bii di gën a jafe kon loolu ñu ngi ciy bu baax te bu ñu delloo ci kër yi ñu toppatoo seen aliwa yu baax ndax ñuy mën a nafar ndax loolu bu amul rek dana jafe reprise bi li tax mu gën a yomb mooy bu ñuy gëj ci téere bi dañ ci nafar bu baax même koo xam ne sax fas fasiutu ñaatu waaye bu comme que jàng na at ba ba am lu mu téye wax dëgg yàlla dara wóota mën a tax mu bàyyiwaat ko mu dem ndax coono bi mu def ca njàng ma coono ba mu ca daj ak ñeenti bunt yi ko seqoon mu bëgg a génn mënta génn ñàkk liberté ba mu jàng ci dara même bu fekkee wóotu ñëwaat ci barab bi la mu yor noonu wër ko perte kon loolu mat a bàyyi xel la kon bu ñuy wax nafar bi ñëpp la concerné kon loolu ñu ngi koy dénk ñëpp di ko bàyyi xel baax di ñaan yàlla euh, yàlla defal ñu tawfeex euh, ba njaboot gi liñ ci namm yàlla defal ñu ko. xëy na am na ay points yu ñu bëggoon waaye nag euh, temps bi mayewu ko ñu ngi sant ñëpp di jéggalu ci kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.